الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم تتبدل الخبيث للطيب وأنهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث رباع فإن خفتم ألا تعملوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ألا تعملوا وآتوا النساء صدقاتهن نحية فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كبر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبان ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائهم لكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ñu ngi sant yàlla bu baax dooli sant yàlla bu baax a baax di wax alhamdulilah alhamdulilah di wax ne am nañ beneen contentement bu baax a baax tey ci bés bi nga xam ne nii tey mooy suñu bésu maam Ama Roqaya man nag daanaka li ma ci contribuer du bëri lu dul euh, damay sant di gërëm rek di gërëm set setaat yi nga xam ne nii ñoom ñoo yor ëpp mbiram organisation bi di gërëm xale yi góor a jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp tey fu teeku nañ ñoo jàpp ci bés bi yàlla yàlla def leen ay mag taxaw jëf yëpp mag ñëpp ñoom ñu téye yëf yi yàlla xam na ne ñu ngi ci programme bi bu baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gannaaw loolu ñu ngi gërëm suñ bàyyi gannaaw buñ ci jiitalee suñ maam Medoune ñu ngi gërëm suñ bàyyi Modou Assa suñ bàyyi Modou Fatou Kumba di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla may leen wét ak wér leen fan gudd di ñaanal suñ maam suñ baay suñ mm, baay Amat Roqiya nekk Kaolack di gën koo kam ci Amat Xadi euh, Faati ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko delloo njukkal barki démb lañ dem ajuma bi paas lañ dem dëkkam mu nekk ci préparation mais wan nañu nañu moom moo ñu gën a bëgg bés bi li muy xat-xat wan nañu nañu moom ñu gën a bëgg bés bi ñu ngi koy ñaan yàlla moom yàlla may ku wét ak wélle fanu gudd ak mboolem njabootu maam ya wax dëgg yàlla fugal nañu bés boo xam ne nii ñun amuñ fay leen amuñ lenn loo xam ne lu dul lu ñu def rek lu dul ñaan leen yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax baax di ñaan leen yaay suñuy ñëpp tey gis nañ nuñ taxawoo bés bi wax dëgg yàlla am ñoom ñëpp fuuglu nañ bés bi ñëw nañ dikk nañ dikkee nañ doole dikkee nañ seen jëmm dikkee nañ seen poos dikkee nañ seen xam-xam ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp mboolem alxuraan ji luñ ci jàng yàlla nañ ci yàlla fulal lu ëpp suñ njort yaara bi ci barki baay ak baayam yàlla ma noonu yàlla na ko yàlla def bés bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla ci yàlla teg loxo ba mel ni gàmmu Medina bi wala gàmmu Taïba Niassène ñu ngi ñaan yàlla bés bii yàlla na ci yàlla teg loxo ba mel ni gàmmu tay bi seen ñu ngi fuglu famille Keur Dama Roqe yëpp ñu gën a àndoo nekk benn bés bii buñ koy seetaan mukk nu chaque année nañ ci def suñu xool ak suñu yitte te yaakaar naa loolu ñu ngi ci nañ ci gën a nekk bu baax a baax ñuy gërëmaat bu baax a baax suñ mag ñu gën koo xam mag ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant